mbokk yi asalaamaaleykum mbégteex banneex la ñuy am ba bu jot ñuy feggoog yéen fépp fu waay mën a nekk ci biir réew mekk ci biti réew jàkkaarloog seen télévision Walfadjri leeru jamono rawatina si seen émission bi lee di euh, célébé yoon célébé yoon du ma tay di ko wax dañ fiy pencoo lépp loo xamante ne dafa yemook actualité ay bés bi ñuy dalal ay kangam yoo xamante ne seen xam-xam day màcc jom ci fànn boobu ñu gind ci askan wi ci laaj yi nga xamante ne ñoo ngi koy samp ñiy toog ci grand di ko waxtaane ñiy toog ci bureau yi wala ci biir kër yi di ko waxtaane plateau ñu dalal fi euh, madame Maguette Dia bokk ci cadre yu alliance pour la république ak ki nga xamante ne moom moo dajale ñetti sant yi di Mbow Balaam bokk ci mouvement rassure bu suñu xarit yu Mbow du ñu def lu dul bàyyi suñu ay gan ñu nuyoo ba noppi ñu doog xuus ci li nga xamante ne moom moo di waxtaan wi kàddu gu njëkk gi dañ koy jagleel soxna yi kon euh, soxna Maguette ñu ngi lay nuyoo. jërëjëf maa ngi rafetlu li ma njëkk a jox kàddu. Euh, di la nuyu di nuyu waa équipe Walfadjri yëpp di leen gërëm encore une fois bi mooy deuxième fois ma jàll sele mm-hmm. donc may remercier seen équipe Walfadjri ci euh, li ngeen di def ngir as askanu Sénégal di remercier aussi euh, parti ñi responsable yi nga xam ne ñoo nekk ci parti bi ma nekk muy parti APR son excellence Macky Sall jiite ko remercier cadre yëpp nekk APR remercier aussi en même temps sama naataangoo yi nga xam ne ñoo nekk ministère de la santé bi nga xam ne fa laa bokk. Mhm. remercier en particulier nag les responsable de Pikine particulièrement la commune de Pikine Nord muy commune bi nga xam ne nii fa laa fa nekk. politiquement. Mhm. jërëjëf euh, madame Maguette euh, Dia bokk ci cadre yu alliance pour la république euh, Mbow Balaam maa ngi lay nuyu. jërëjëf soxna Awa ñu lay nuyu di la sant ci invitation bi ñu invité. Euh, di nuyu tamit euh, sama co-débatteur bi muy soxna Maguette ja mhm. di nuyu euh, suñu kilifa yi di ci jiital Khalifa Sall ak Youssouf Mbow bi nga xamante ni moom mooy secretaire général mouvement bu ñu nekk muy RASU jërëjëf. Mhm. jërëjëf duñ def lu dul soobu ci waxtaan bi li nga xamante ne nag ay bés yi yëpp moom moo lëmbee waxtaan yi te mu doon tiis boo xamante ne wax dëgg neex yàlla. xamuñu fan lay yem ndorteel gi rek la ñu xam muy cas de noyade yi nga xamante ne ñu ngi koy nemmeeku rawatina fi nga xamante ne moom moo di ci banlieue bi laaj yu bëri samp ci nag muy ndax. yilee plage ay plage interdite lu tax xale yi di fa dem ndax li nga xamante ne moo di suñu plage yi ñu moom war faa mën a dem léegi dañ li ci ëpp dañ ko privatiser muy matuwaay yoo xamante ne naam jawriñ ji xam le ne nañ ci jël ay mesures waaye laataa ñuy jël mesures dañ naan xoddaliku laataa ngay lakkale waaye jaan du romb ba pare nga topp ca watit ga muy ponk boo xamante ne tey moom la ñu gën a bëgg a nam waxtaane nag doogu xuus ci yeneen euh, ponk yi magget tey muy naqar goo xamante ne dal na ci banlieue bi yow mi nga xamante ne yaa ngi sokkee ko doomu Géejawaay euh, Malika Pikine ñëpp ñu ci bari ànd nañoo ko tiis ne bi weeru juin duggee ba nigi tey jii mun nañu wan ñi ne am na lu toll ci 40 doomu aadama yoo xam ne seen bakkan rot na ci géej gi ci semaine ay bës dong fukk ak benn xale seen bakken des ci géej gi ndax tey dañoo ñàkk euh, fu ñu jëm ba tax ñuy dem ci plage interdite yooyu waaw euh, Awa Diome Ndiaye damay tàmbale d'abord mm-hmm. di wax ne ñu ngi Euh, jaale ñi nga xam ne nii seeni doom dañoo lab àndandoo ak ñoom ti tiis woowu ñi nga xam ne nii am nañ ko famille yi nga xam ne nii am nañ ko mm-hmm. ñaana leen yàlla yal na yàlla fa xasal leen tiis woowu ba dootul gaawati ñëw mm-hmm. di ñaan aussi yàlla sunu borom mi nga xam ne moo yor dundu doomu aadama yal na yàlla yërëm leen yal na yàlla yëkkati daw si mm-hmm. di ñaan yàlla aussi loolu lu mel noonu mu di fi gëj waaw Euh, li may tàmbalee rek mooy euh, wax ci information bi nga xam ne ni jot nañ ko tey muy actualité muy sorti président de la république Macky Sall naqarlu lool li nga xam ne ni mooy cas de yooyu nga xam ne ni wax nga ko léegi am na am na te ñu ngi ko gisee euh, li ci ëpp ci ay zones yoo xam ne ni c'est des zones interdites comme ni mu ko waxee mhm. donc naqarlu na ko ministre aussi de l'intérieur génn na moom aussi naqarlu loolu wax ne dinañ veiller encore une fois de plus ci sécurité bi li may wax tàmbalee ci loolu rek damay njëkk euh, wax ne ñun responsabilité bi njëkk mooy la responsabilité familiale la responsabilité parentale parce que ñun aussi war nañ mën a jël ay matuwaay yoo xam ne suñuy doom du ñu dem ci ay plage yoo xam ne nii dañ ko interdit dem dafa sangu man mii di wax ak yow passé euh, naa la plupart de mon de mon cursus de jeunesse dama ko def foofu noonu côté boobu muy géejawaay côté Malibu foofu laa dëkkoon nekk fa ak sama tante donc xam naa foofu plage boobu nu mel dama fa daan dem di ànd ak samay frère ñuy dem foofu defa fa mais man personnellement musuma fa sangu te mosuma ànd ak sama famille ba ñu sangu fa su ma demee sax c'est pour juste laal ndox bi génnaat donc c'est pour dire que aspect dangereux bi nga xam ne nii zone boobu am na ko te teg nañ fa ay panneaux yoo xam ne nii de tout temps dañuy wax ne plage boobu dañ ko interdire kenn waru fa sangu donc ñuy ñaax yi ñuy gën a surveiller seen doom yi loolu mooy responsabilité ba njëkk parce que responsabilité état ki si doyul am na responsabilité famille bi am na responsabilité société bi ak ñi nga xam ne ñoom nga dëkkal donc normalement war nañ fexe ba xale yooyu ñu mën a am yeneen loisir parce que ci période de vacances lañ nekk mhm. mën nañ dem jàng def ay cours de vacances mën nañ am yeneen activités yoo xam ne ay activités récréatives la mën nañ def sport parce que zone boobu ñu bëri dañ fay dem rien que pour def sport bu ñu paree dem ñibbi seen ko dem sanguñ donc normalement bien que nag xam nañ ne ay xale c'est des adoles euh, adolescents ñoo ñu ay xale ay jeunes lañu donc normalement am ay matuwaay yoo xam ne jël nañ ko pour renforcer sécurité bi te ministre de l'intérieur wax na ko sa mm-hmm. matin ne dinañ jël ay matuwaay pour renforcer mais loolu chaque année dañu seetlu ne dafay am donc li ñuy def mooy ma ñaaxaat. état bi nguur gi en plus ñuy sensibiliser famille yi pour ñu téye seen doom ñu bañ a génn wala ñu am yeneen occupation yu dul dem plage may ñaaxaat gouvernement bi encore une fois ñu yokk effectif bi nga xam ne ni sécurité bi pompier maître nager yi si c'est possible te aussi di dellu di wax ne collectivité locale yi aussi am nañu rôle bu ñu war a jouer si côté boobu ndax ñoom aussi dañu war a jël ay matuwaay yoo xam ne dina mën a tax ba au moins ñu jël quelques maîtres yoo xam ne dina leen mën a fay ñu mën a surveiller plage yi di mën a tere xale yi ñu sangu foofu parce que encore une fois wax nañ ko waxaat ko c'est des zones yoo xam ne nii waruñu fa sangu c'est interdit mhm. voilà euh, Mbow euh, Maguette dafa wax euh, dafa situer les responsabilités mhm. tey responsabilité parentale certes am na mhm. mais responsabilité ñi nga xamante ne ñoom ñoo jël suñu ay gouvernants am na comme ni mu ko waxee élus locaux yi itam war nañ ci am benn part de responsabilité mais la responsabilité majeure un combat kii. waaw awa balaa ma tontu ci sa question boobu damay euh, jaale famille ndax euh, dafa metti nga nekk waajur nga am sa njaboot dem ba njaboot yooyu commencé màgg nga liggéey le plus souvent ba ñu woo la fa ñu ne la xale bi lab na kooku dafa metti les responsabilité nag sont partagées waaye bu ñu xamee ne que état moom lañ jox suñu sécurité moom lañ dénk suñu gafaga donc ñoom ñoo ñoom ñoo ci ëppale ndax dëkk bi doy na waar doy waar boo xamante ne fu mu nekk nii parents yi mënatuñoo yeewu ñu toog ci ñu toog ci kër ga bu ñu yeewoo góor comme jigéen dañuy génn ñu dem ñu liggéeyi dem daani seen doole génn ci kër yi suba teel pour ñibbisi le plus souvent guddi donc ñooñu mënuñ leen a wax ne mënuñ wax ne que ñoom ñoom ñoo ci ëppale responsabilité man jàpp naa ne gouvernement bi moom moo ci ëppale responsabilité dans la mesure où ci ay vacances lañ comme ni mu ko waxee xale nag il faut que mu leen a mënuñ wax rek xale dafay jàng à chaque fois c'est vrai que war na mun a am des activités de vacances euh, lii dafay faral di am ren nag affaire bi dafa jéggi dayoo donc foog naa warul nekk rek gouvernement boo xamante ni comme nu ñu ko tàmbalee la maanaam euh, médecin après la mort wëcc ba nga xamante ni cas yi yëpp am na ñu door a jël seen motuwaay bu ñu xamoon ne que ren dafa tàng premièrement et deuxièmement xale yi jël nañ seen vacances comme ni mu ko waxee waroon nañoo mën a renforcer sécurité bi maître nageur ngi fii waaye aussi yenn plage yi nga xamante ne nii Euh, dañuy tere euh, nit ñi di fa sangoo le plus souvent danga doon ñëw nga fekk fa benn wala ñaari agent de sécurité le plus souvent dañ doon yor sax seen i fas di dem di ñëw loolu dina dissuasive nit ñi ba nga xamante ni ku ñëw aussi doo sangu di nga doxantu noonu rek euh, nga ñibbi man daal foog naa ne gouvernement bi moom moo war a jël motuwaayam mu xam ne que lu mel ni bakkan doomu aadama dafa dafa fort te xale kenn mënu ko tere foo waajur yi aussi mënuñ topp xale yi benn par benn waaye gouvernement bi rek moom moo ñu mën a jàppale ci loolu renforcer sécurité yi ci ci plage beneen wàll bi aussi mooy comme ni nga ko waxee plage yi surtout lu ñu am fii ci dakaar man foog naa ne c'est un don de boo xamante ne dañ ko war a sàmm waaye lu ci métti actuellement mooy surtout bu fi nguur bi nii ñëwee affaire bi dafa yokk amatul benn espace boo xamante ne ni mun nga fa jaar ba nga am contact direct avec avec avec euh, avec euh, euh, l'océan fu nekk jël nañ ko dagg-daggatee ko caxat-caxatee ko jaay ko ba nga xamante ne nii xale munuñ mënuñ dem fu dul zone yu ñu inter zone yi nga xamante ne dañ koy interdire bu nekkutoon loolu amoon na amoon nañ fi ay plage yoo xamante ni xale yi mun nañ fa ñëw waaye exemple bu ndaw bu ma fiy joxe rek mooy fii ci fii ci Yoff am na benn place bu mag bu fa nekkoon boo xamante ni ku nu la neexee nga doon ñëwee nga football nga def sa sport boo paree nga sangu nga ñibbi waaye fu mu nekk nii gis nañ ne am na ay privé yoo xamante ni ñëw nañ euh, occupé ko def fa seen case ba nga xamante ne léegi pour xale yi mun fa camper dañuy fay bu fekkee xale yi amuñ euh, xaalis nag lu ñuy def lu ñuy def mooy dem ba nga xamante ni ci zone yi nga xamante nii la dañ fa tere pour ñu sangu pour ñu pour ñu pour ñu di fa def seen beñaat mhm. et loolu lu mel nii dafay lay lay jur mhm. euh, tey Maguette fii Mbow daanale foofu lay ñëw mooy privatisation li nga xamante ne moo di plage yi 90 pour cent euh, littoral bi yëpp dañ ko privatiser fi mu nekk euh, nii muy indi tamit problème bi nga xamante ne xale yi suñu mënul fay dañuy dem ci zone yi nga xamante ne dañ ko interdit surveillance boo xamante ne mu ngi fa te yaakaar naa ne surveillance bi gën a accrue ci yi nga xamante ne foofu la nekk foofu la waroon amee et le ministre de l'intérieur est conscient de ça bi muy doog a jóg naan euh, dinañu xoolaat wàllu privatisation yi naka la ñuy demee mm-hmm. est-ce que comme ni ñu ko waxee du médecin après la mort ils étaient conscients de ça vacances yi jot na y des mm-hmm. euh, activités récréatives yoo xamante ne ça se passe au niveau des plages mm-hmm. euh, damay revenir à tuuti ci euh, li nga wax encore fois pour réitérer répéter encore ne Euh, maanaam noyade du cas bu bees ci Sénégal dafay am chaque année donc comme je l'ai donc nekk loo xam ne nii faute gouvernement yi la pour man parce que loo xam ne luy am c'est récurrent la dafay ñëw chaque année dafay ñëw parce que xale yi dañuy dem malgré le fait que ñu leen di interdire xale yi dañuy dem pour dem sangu ji donc di topp seen plaisir bopp donc man li ma xam ne nii moo gëm naa ko mooy na mesure yi gën a dëgër dañ ko gën a renforcer mesure de sécurité yi nañ ko gën a renforcer mesure d'accompagnement yi maître nageur yooyu ñu yokk ko nañ ko gën a renforcer te loolu ça revient aux collectivités locales encore une fois parce que l'État a décentralisé donc chacun am ku ci nekk am nga pàcc bo wàll boo xam ne yow yaa ko war a bay donc ku ci nekk war na mën a bay waaram collectivités locales yi aussi nañu bay seen waar pour revenir pour wax ne juste mu ngi wax ne privatisation bi euh, intervenir dañ ñu ngi jël euh, te euh, maanaam zone bi nekk foofu yépp am na côté yoo xam ne dañ ko jaay mais damay wax ne loolu du du si nguuru Macky Sall la commencé loolu fii lañ ko fekk loolu yàgg na fi am du tey la commencé du 2012 la commencé donc yàgg na fi am donc loolu bu amee dafay jot nag gouvernement bi moom en tant que responsable autoritaire euh, euh, mu nekk autorité bi nga xam ne moo war a intervenir. premier plan bi muy ñëw dafa ne woon. autorité boobu c'était les inégalités mais dañu gis ne wu ñu les inégalités ba mort doom am ñu doog a ne dañuy corriger ses inégalités. non non amul euh, benn. non pour man du loolu parce que gis nañ ne am na quand ay nit yoo xam ne ña nga fa di surveiller plage am na fa sécurité bi ma nga fa. peut-être li nga xam ne moom lañ soxla mooy ñu gën ko renforcer gën ko yokk pour man loolu la mais gouvernement bi dafa toog di seetaan ba loolu am man loolu gisuma loolu gisuma loolu parce que nee naa la man fa laa dëkkoon dama fa daan dem tout le temps dama fa daan dem donc gisoon naa mesures yi nga xam ne nii nguur gi fa ne nguur gi fi nekkoon peut-être jëloon na ko ci loolu gouvernement bi ñëwaat toppaat ci loolu peut-être ñun li ñuy ñaax nit euh, autorité yi mooy ministre de l'intérieur na fexe du mu renforcer sécurité bi te wax na ko tey def na ko dans sa déclaration mu ne carrément dina fexe ba loolu yu renforcer ko ba nga xam ne nii loolu bu buñ dee am ay cas de aussi mu bañ a bari parce que malgré tout mooy li ma wax rek ku si ne da nga war a jouer sa responsabilité boo ko jouer ba mu mat xëy na lii du am parents yi responsable au premier plan ndax ku ci nekk war ngaa mën a téye sa doom man du ma toog mukk te waxuma sama doom bul dem plage dama ko koy interdire carrément parce que du lu baax xam naa ne bu fa demee te zone yi nga xam ne nii foofu boo fa demee géej bi dafa dafa dafa kii daal dafay sàmbaraa tout le temps donc du géej boo xam ne war nañ fa mën a sangu ku bëgg sangu mën nga dem ngor ñun dañuy paas dem ngor ku bëgg sangu mën nga dem plage corniche bi c'est autorisé nga dem fa nga sangu bu dee loolu rek lañ bëgg mais yooyu yëpp xam nga tey c'est payant encouragé. waaw c'est payant yooyu c'est payant tey parents yi dundu kër gi ba pare bëgg ci teg. mais loolu am na depuis mu ngi am boobu ba tey te musul changé ñun nañ daan fay ñun ñi buñu daan dem dañuy fay tout le temps nit ñi lañuy fay. waxuñu ne dañuy ñëw tey nguuru Macky Sall ñu war a mën a wax ne waruñu privatiser waruñu def lii waruñu def lii peut-être nañu xool condition yi ñu koy defee man je suis d'accord. mais su fekkee ne loolu mooy solution bi amul beneen solution mais loolu ñu privatiser nit ñi fay di dem moo gën suñuy doom yi di dee ci géej gi. mais privatiser loo xamante ne suñu domaine la ñun ñoo ko moom loo xamante ne suñu moomeel la. suñu domaine la mais aussi c'est les sénégalais ñoo fi nekk ñoom ñoo bëgg a ut koom-koom ñoom ñoo bëgg a développé wu ñoom ñoo bëgg a am ay ressources donc c'est normal que ñun en tant que sénégalais ñun ñu xool nu ñuy organiser lool bu fekkee ne un sénégalais privé moom mooy ñëw pour organiser pour jël ko en charge. mais pourquoi pas loolu aussi dafay bokk ci liy yokk. mais pourquoi pas est-ce que Mbow tey partagé nga avis boobu nga ne c'est très normal que tey pour privatiser une partie de la littorale euh, bëgg fa implanter seen ay activité nit ñi bëgg divertir itam ñëw ci plage yooyu di fay te seen na fa demeewul noonu tey jii est-ce une solution pour euh, éviter cas de noyade yu bëri yi tey. en fait euh, man jàpp naa ne loolu du du solution bi. dans la mesure u loolu bu ñu ko bu ñu ko continuer di def aussi le plus souvent ñi ñu koy jox sax duñu ay sénégalais le plus souvent euh, ay nit la yoo xamante ni boo jëlee lu ci mel ni gannaaw université Cheikh Anta Diop maa ngi fàttale ko bu ñu fay nekk période yu demee nii mu nekk période révision yi danga nga doon euh, jéggi kolodel euh, nga dem doxantu foofu ci la nit ñi di féexloo ci la nit ñenn ñi di defee seen révision gi yooyu waaye léegi gis nañ hôtel yi fa nekk gis nañ ñi fa ñëw implanté wu fa ba nga xamante ni population bi mënatuñ fa accès même sa oto boo ko yoree sax da ngay daw ci ay kilomètres yu bëri léegi doo seenati ndox loolu dafa métti moom li muy wax nii peut-être euh, ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci nguur gi am moyen mun a jël seeni doom jël weekend dugal leen ci seen oto dem ba foofu fay pour mun a pour mun a profiter ci euh, loolu nga xamante ne ni suñu domaine la te yàlla yàlla jox ñu ko ñu bëri yu bëri di ko di ko nawee loolu foog naa du du solution bi Euh, li ci des mooy euh, euh, parents yi aussi comme ni mu ko waxee am nañ am nañ part de responsabilité te man ñoom laay gën a ñaax fi mu nekk nii c'est vrai que dëkk bi métti na trop dëgër na bu ñu yeewoo ñoom il faut que ñu jóg ñu daani seen doole waaye nañ xam ne aussi ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci réew mi comme que xam ne ni ñoom am nañ seen moyen ba le plus souvent du concerné seen doom doo dégg ñu tudd ci benn doomu ministre wala benn doomu préfet wala benn doomu sous ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñàkk amuñ surveillance seen kër amuñ garde gardien bu ñu mën a bàyyi ci kër geeg yooyu amuñ chauffeur bu ñu mën a wax kay jël xale yi nga yóbbu leen plage yooyu ñoo ñu la seen doom yi di di di dee malheureusement métti na waaye c'est c'est ça aussi la la la vérité donc ñu naan parents yi rek ñu leen di ñu leen di soññu tuuti ñu góorgóorlu ci vacances ba nga xamante ni peut-être dinañ inscrire seen doom yi lu ci mel ni ay daara di soññ aussi euh, ASC yi parce que ñoom aussi jàpp naa ne war nañ cee mën a jouer seen rôle bu baax a baax ñuy def ay activités nekkul rek euh, sport rek la ñu war a def mais des activités culturelles yoo xamante ni lu mel ne ay sketch ay théâtre dina permettre ñu retenir répété loo di leen defal peut-être des cours de de vacances des cours de renforcement ba nga xamante ne ni dinañu wàññi dem plage bi bu munta ñàkk ba munta ñàkk entraîneur bi par exemple mun na ñëw mu jël xale yi un jour ne leen dañuy ànd ñu ñëpp ñu doxantu plage foofu la ñuy defee suñu sport mu encadré leen moom ak euh, staff bi muy àndal yëpp ba heure ñibbisi jotee peut-être ñu ñibbisi yooyu mun na mun na wàññikaay mun na wàññi cas de noyade yi ñu mm-hmm. yaakaar ne dina fi yem uh, ci vacance yi nga xamante ne mi ngi doog a door te lii mm-hmm. ci ba kenn rot si ñuy jàll seen i famille yëpp di leen uh, massaw di wax uh, kilifa yi itam ñu gaawantu jël ci matuwaay rawatina ci plage yi nga xamante ne dañ naan ay zone interdite le panneau doyul ndax am na ñoo xam ne mënuñu ko liir jànguñu mm-hmm. yenn jàng yi itam mu am loo xamante ne dina fa taxaw di leen ko tere moom moo ëpp solo que panneau yooyu sax yaakaar naa ni ne muy beneen ponk boo xamante ne gën dinañ ko gën di lawal di gën di développer mu jëm ci wàllu euh, sensibilisation beneen point bi ñi nga xamante ne ñu ngi koy évoquer léegi muy ba léegi ci wàllu social bi gis nañ ne jamono yi yëpp li nga xamante ne moom moo sonal askanu Sénégal moo di ñàkkum euh, ndox saa su jot ñu xamal ñu ne tel forage dinañ ko ibbi tel forage samp nañ ko pour ñàkkum ndox mu jeex ci askan wi waaye ba tey tey la gën a tar euh, soxna Maguette damay ñëwaat rek ci déclaration yi nga xam ne son excellence Macky Sall président de la république wax na ko aussi par rapport ak problème mu ndox bi ma sow na coono ñi nga xam ne ni ñooy dund loolu ndax gis nañ ne affaire bi xaw na yàgg euh, mais loolu yëpp aussi dafa jëm ci euh, defaraat ndax mu gën a yemb boo seetloo euh, depuis 1996 ba tey bi nga xam ne nii créer nañ SONES ak SDE dafa amoon déficitu ndox léegi déficit ndox boobu gouvernement bi ñëw na il fallait que moom mu combler déficit boobu parce que déjà population Sénégal bi en général yokku na ñu ngi ci toll maintenant ci ñu ngi ay côté 15 millions d'habitants donc non seulement loolu am na mais aussi axe bi nga xam ne ni moo gën a peuplé muy axe Mbour cees aussi dañu gis ne yokk na encore plus de deux fois donc loolu aussi par rapport ak li nga xam ne ni moom mooy Euh, alimentation bi nga xam ne ni moom moo war a jógee euh, fële Kër Momar Sarr donc gouvernement bi jël ay dispositions depuis 2012 Macky Sall dugal na ci 500 milliards. donc 500 milliards yooyu déjà ñu ngi ci euh, usine bi nga xam ne ni mooy usine Kër Momar Sarr 3 dégg ngeen fan yëpp ñu di ci wax fan yii paase rek le ministre premier ministre demoon fële côté Bayax pour xool aussi yeeg cinq forages yoo xam ne dolli nañ ko Euh, pour yokk li nga xam ne ni mooy li nga xam besoin euh, Sénégal ak mm. Ndakaaru particulièrement par rapport ak li nga xam ne ni mooy ndox bi donc pour dire que gouvernement bi jëgul si depuis boobu ba tey pour indi ay solution yoo xam ne ni solution du doon solution yoo xam ne nii léegi-léegi lañ koy defar mu normal bu demee quelque temps après mu ñëwaat problème bi nekkaat la même problème donc c'est normal que ñu wut ay solution yoo xam ne ni dafa yokk capacité ndox ba nga xam ne Sénégal ñu toogati di wax nañu ci problème mu ndox. donc loolu dafay laaj sacrifice. n'est-ce pas parce que ay usine la ay travaux la yoo xam ne nii ay nit dañ koy dañ koy def dégg ngeen premier ministre wax na ne am na ay ingénieur français yu ñëw ànd ak ingénieur sénégalais am benn paan benn tuyau bu paanoon ñu jëm ko defaraat yokk ko yokk capacité ba nga xam ne ndox bi du mu doon ñëwee dina gën a ñëwee mu gën a gën a yem yokk aussi forage yi nga xam ne nii moom lañ moom lañ ubbi bayax déconnecté quelques maraîchers yóbbu leen donc loolu yëpp mu nekk ay investissement yoo xam ne nii ak ñu ngi prévoir au niveau de Mamel étude bi pare na muy xëcc euh, eau de euh, le dessalement de l'eau de mer donc loolu aussi mu doon ay tey tey Maguette euh, initiative yu rëy c'est bien beau c'est des initiatives yu ñu jël bëgg nit ñi mën a jotee ci ndox moomu mais mm-hmm. le problème moo di ne dans leur communication chaque jour dañ ciy péché mhm. parce que est-ce que ñi ngi wax dëgg askan wi ndax suñu toogoon jàkkaarloo askan wi ne leen problème kat dina am ci diirub sàngam ak sàngam mhm. mais waxuñu loolu chaque jour dañuy annoncé ay date ndox bi dina ñëw ndox mi di gën di màgg am na mhm. ay quartier yoo xamante ne du ren la ñu toog amuñu ndox ça fait des années Scat Urbam bu jege bii rek amuñu est-ce que loolu c'est réellement ça le problème non problème bi yëpp loolu la capacité bi la ñu war a yokk bu ñu yokkee capacité bi parce que am nañ un déficit la wax nañ ko de 50 000 mètres cubes donc loolu il faut ñu combler ko donc loolu pour mu am il faut ñu def ay travaux yu mag donc c'est normal ko loolu aussi mu am mais mais aussi comme ni nga wax nañu yokk communication bi aussi baax na te ñun lool moo ñu tax a ñëw fii tey di waxtaan ak askan wi waxtaan ak sénégalais pour wax leen lan moo waral loolu premier ministre dem na fa gis nañ la mu fa wax euh, ministre de l'hydraulique Mansour Faye aussi wax na ci def na ci ay communication et à chaque fois que robinet di tëj dafay génnee ay communiqué di wax na dafay robinet dafay tëj jël leen seen matuwaay donc loolu aussi vraiment ñun neexuñu franchement man personnellement parce que dama koy dund comme sama yeneen morom yi ni ñu koy dundee donc neexul nga toog sa kër amuloo ndox loolu ñun ñëpp reconnaître nañ ne neexul mais nañu reconnaître aussi ne gouvernement bi état bi depuis 2012 bi muy ñëw Macky Sall mu ngi fi fekkoon 260 000 mètres cubes moo fi amoon. de 2012 à 2018 mu fexe ba yokk ko donc loolu bu amee ça veut dire gouvernement bi toogu rek di xoole mu ngi jël ay initiative yoo xam ne dafay fexe ba ndox boobu ñu soxla déficit boobu ñu am ñu yokk ko donc loolu man je pense que war na mën a tax te léegi sax fan yi boo seetloo xaw na am tuuti amélioration te yow war nga ne am na ay zone yoo xam ne ni ay cité xaadim parce que man xam naa zone yooyu parce que dëkk naa fa ki yu Cambérène parcelle ñooñu aussi dañuy sold mais loolu aussi ay problèmes yoo xam ne c'est des problèmes récurrents yu amoon par rapport ak peut-être niveau bi ñu dëkkee ak yeneen euh, kii réalité yoo xam ne nii peut-être ñoom maîtriser wuñ ko. mais de toute façon techniciens ñu ngi ñu ngi ci di liggéey di def lu ñu mën pour que loolu. ndox moom mu mën a ñëw mën a yemb nit ci mën nit ñi mën ci jëran jëf jëfandikoo comme ni mu waree comme ni mu waree donc vraiment ñu ngi massawu ñëpp <laughs> mais nous sommes avec eux parce que ñun aussi li ñuy dund la ñuy dund nous sommes des sénégalais comme les autres Maguette dinañ ci ñëwaat mais tey euh, Mbow ndax euh, tey ji yaakaar nga ne situation bi ça va se régler de sitôt des restructuration yenn forage yeeg yu ni mel mais le problème reste à l'état tey jii rawatina biir Dakar nga xamante ne les gens restent maintenant toute une journée voire 48 euh, heures sans avoir d'eau tey jii hmm. waaw comme ni nga ko waxee soxna Awa le problème reste euh, entier euh, sànq maa ngi <laughs> xool sama jigéen màgget ma <laughs> ma xaw ko ma xaw ko sax yërëm ndax défendre régime bi nag quand dafay dafay jafe bu fekkee dëgg la ñuy waxante parce que les plus hautes autorités ku ci mel ne ministre de l'hydraulique ku ci mel ne premier ministre dañoo génn génnaat ñu dig askan wi jël ay garanti joxe ay dat le le 20 ju le 20 juillet la ñu waxoon dañu ne problème bi dinañ ko régler c'est vrai que problème bi yàgg na fi mais comme nu mu mel bi ñu fi ñëwee ak léegi diggante 2012 ak léegi ñoo ngi fàttaliku panne bu fi amoon kër Momar Sarr coono bi fi askan wi sonnoon mais depuis ñetti weer yi am na ay euh, quartiers yoo xamante ne ni balaa koor gi ba léegi mënuñ fexe ba am ndox dañuy toog toute une journée wala ñu toog des fois ñaari fan ñoo am ndox loolu nag ci biir capital je pense que dafa sax ruslu parce que am na yenn yoo xamante ni warul ci pays boo xamante ni da nga ne euh, tu aspir vers euh, l'émergence comment on peut émerger sans eau nit ñi mënatuñoo sangu nit ñi mënatuñoo naan nit ñi mënatuñoo togg foo toll nit ñaa ngi yore seen i bidon dañuy liggéey ba wàcc jël seen i seen i seen i encore toppaat guddi gi di di kii ñenn ñi duñ nelaw parce que ndox mi toq-toq bi ñuy jot am d'habitude vers 3 heures du matin 4 heures lay ñëw bu ñëwee aussi le plus souvent peut-être raxasee ko nga mën wala fóotee ko nga mën mais doo ko mën a naan te ñëpp xam nañ ne yeneen ndox yi nga xamante ni dañ koy jaay ñu war ko naan yooyu ndox la yoo xamante ni bouteille bi le plus souvent 1000 francs lay jar mooy 10 litres bi nekkul kenn ku nekk moom moo mun am euh, euh, moyen pour jënd ko donc lu ñuy def rek mooy ñu jàpp seen mal en patience tout en sachant que ces gens la qui sont là actuellement pour man ils sont incapables de régler situation si on que gouverner prévoir population bi ni ñuy yokkoo am nañ ay euh, entreprise yu fi nekk yoo xamante ni euh, ñoo ngi xayma à chaque fois xam nañ ne ñaata doomu aadama ñoom ñoo juddu xam nañ doomu aadama yooyu fi ak 5 ans fi ak kii war nañoo dugg école war nañoo màgg war nañoo jëfandikoo ndox war na war nañoo soxla forage mais ñi benn politique d'anticipation lañ amul. waaw ndax Rafi mi ngi fi de. mu mi ngi fi ñoo ngi fi ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi euh, kolobaan liggéey liggéey bu am solo mais le plus souvent Sénégal moom surtout gouvernement bi fi nekk nii ñëpp xamee nañ leen ko dañuy def ay rapport def ay études def ay assises ñu jox leen ko ñu ranger ko ci tiroir loolu nag moom mënul mënul yóbbu nit ñi fenn. mais est-ce que yaakaar nga ne ak euh, le ministre démb ci talaata ji génn na xam la ne ñu ngi doon daloo benn forage. que ça va régler le problème de l'eau est-ce que yaakaar nga ne avec euh, implantation forage yooyu à Dakar. ak euh, yi ñu wax ne ñu ngi koy def ak les techniciens qu'on a importé indi leen ci réew mi pour ñu defar yaakaar nga ne le problème va se euh, solutionner de sitôt. ah wax dëgg fa yàlla de aw ma ci aw ma ci benn yaakaar parce que xam nga ay gouvernant il faut ñu fexe def tout ba nga xamante ne dañuy instaurer benn climat de confiance entre ñoom ak ñu ñuy gouverner. Mm-hmm. mais bu fekkee man da nekk kilifa. Euh, nga am ay responsabilité am ay ndombool tànk ñu jox la gafaka réew mi jox la moyen yépp pour nga liggéey pour nga wax sa askan dëgg dëgg la dafay sooxee kenn mënul am du 100 pour cent kenn mënul am du parfait loolu moom mënul nekk mais le minimum mooy nga wax nit ñi dëgg bu fekkoon bu ñu génnee la première fois dañoo wax dëgg wala ñu génn une deuxième fois ñu wax ñu dëgg donc amul problème bu ñu waxatee ñu gëm leen mhm. mais à chaque fois dañuy génn def des déclarations dem indi ay expertise euh, jëlee ko yeneen i réew fekk expertise nationale bi moo ngi am na ñu xarañ ñoo xamante ne nii bu ñu leen joxoon seen aq jox leen jox leen seen seen wareef euh, war nañoo mën a régler problème bi. Mhm. man foog naa ne jàpp naa ne daal problème anticipa problème anticipé ci problème bi moom loolu loolu lañ mënul problème boobu la ñu am. problème boobu la ñu am euh, tey jii su weesoo problème bu ndox mi xam nga ay bés yële. Mhm. Euh, suñu mbokk ku jëkk politique yi ñu ngi doon annoncé wàllu coupure courant yeeg mhm. yi ni mel. Mhm. te tey jii dañu euh, jékki-jékki mu ne këtt ne jot na suñu kaw. gis nañ ne fan yi yëpp xuy xamaj bi tàmbalewaat naa di bëreek yi ni mel. ñu ne woon rek benn intoxication la woon mais tey jii c'est à l'état suñu ñëwee ci ndox mi tey ñu ñëw ci courant. tey fan la ñu jëm et on parle d' émergence et ñu ngi naan taux de croissance sept virgule quelque tey yooyu yëpp fan la situé wu le mal vivre des sénégalais ne fait le fossé ne fait yi bon man li may dolliwaat ci loolu rek mooy wax ne encore une fois répété waat li ma waxoon léegi léegi juste pour repréciser li nga xam ne nii moom laa waxoon parce que waxuma ne ay ingénieurs étrangers ñooy ñëw pour liggéeyal c'est des ingénieurs étrangers plus des ingénieurs sénégalais parce que ñëpp xam nañ ne sénégalais yi fi nekk kenn gënu leen a xarañ donc am nañ ay ingénieurs sénégalais yoo xam ne ni liggéey bu façon liggéey bu ne mën nañ ko liggéey donc faut pas mettre en mal nit ñi population bi ak peut-être le fait ñun ñuy jëlee expertise internationale di ko indi suñu dëkk parce que ñun ñëpp xam nañ ne Sénégal moom li mu yor ci ay nit ñu xarañ bari na te du jeex donc bu pour revenir encore ci li nga wax euh, wax nga dëgg pour affaire courant bi man gisaguma ko franchement gisaguma ñuy wax ne coupure am na te setluma sax coupure bi pour pour dire la vérité maa ngi sama kër mais gisuma coupure courant ah, donc pour dire que waaw peut-être tàmbali na quelque côté mais peut-être du loolu moo tax mu tàmbale du loolu moo tax te loolu yàgg na fi am courant coupé wul parce que ay dette la yoo xam ne dañ ko ameel Senelec donc bu ñu ko ameelee Senelec c'est normal que Senelec wax na nañ ko fay xaalisam parce que xëy na mën na ko dugal ci yeneen investissement mais wax dëgg yàlla boo seetloo li ñu am léegi ci courant moom franchement dafa doy ba ñuy jël di jaayaat yeneen réew donc problème courant moom jarul sax ñu ko fi tudd li ñu remarqué mooy problème mu ndox bi parce que problème courant nit ñi dundaguñ ko dundaguñu coupure courant personnellement man gisaguma ko yëguma ko problème ndox bi nag ñun ñëpp dund nañ ko mooy li ma wax léegi te comprendre nañ ne dañu war a def ay investissement nee na léegi il faut de l'anticipation parce que ANSD mu ngi yore ay wax ne waaw population war yokk mais population war na yokk mais wax naa leen léegi ne li ñu yokk ci investissement ci biir ndox mi moo ëpp fuuf li ñu fi fekkoon 260 milliards lañ fi fekkoon yóbbu nañ ko bu 500 milliards président de la KMS 3 bi rek jël na 464 milliards ci xaalis ci investissement donc ça veut dire que gouvernement bi toogu rek di xoole mu ngi def ay jéego te KMS 3 bi bés bu pare te nee nañ di si moom nee na xamul sax ban dat la déjà ma jox ko date bi c'est dès janvier 2019 wax nañ ne war na mën a commencer di fonctionner normalement te bu commencer di fonctionner ñu am ci déficit ci ndox ñu comblé ko ba nga xam ne Sénégal dootu ñu toogati di wax waxu déficit mais loolu lañ bëgg parce que Sénégal émergent bi ñu bëgg du Sénégal émergent boo xam ne day ñëw taga ba tey tey tey mu nekk tey parce que opposition bi loolu la ñuy loo nit ñi dañ naa leen léegi Sénégal émergent dafa war a émergent léegi léegi lépp a war a yemb. alors que affaire bi euh, yaa ngi occulter problème mu électricité bi est-ce que jar na occulter ndax dinañ toog ba ne këtt na jot. est-ce que loolu moom mooy indi problème bi. dëgg dëgg naam Sénégal ñu ngi wax daañu nañ leen ameel. mais tey bor bi àgg na niveau boo. xamante ne tombeek baril bi. yokk ak yi ni mel nguur gi peut-être gafakaam attanatul mm-hmm. subvention yu métti mm-hmm. mm-hmm. yooyu tey jii moom moo waxal tey jii que ñu bëgg ñu bañ ko ñun ay doomu Sénégal lañ fi la ñuy dund dund xuy xamaj bi man tooguma ci plateau bi di ko wax nii pour wax mais dafa doon loo xamante ne gox ba ma dëkk boog ñu ngi koy dund d'accord ci diggante ñetti fan yi waaw d'accord léegi li nga wax est-ce que am na par rapport ak dette bi man jëma damay laaj dette bi nu mu mën a amee incidence ñu nu ñuy lu ñuy ñu ñuy joxe nit ñi courant man je trouve que amul incidence parce que ñu ngi jox nit ñi courant normalement nit ñaa ngi fay normalement donc war a mën a am incidence peut-être buy am incidence peut-être ci éclairage public bi lay mën a am incidence parce que collectivité locale yi ñoom ñoo amel Senelec xaalis encore une fois ñu réclamer seen xaalis mais bu directeur général de la Senelec génnee apaiser nit ñi ne leen vraiment loolu ay wax la yu ñuy wax di ko génnee di ko véhiculer mais loolu amul ñun mënuñu sukkandiku ci loolu pour wax ne loolu amul ba ba xaar nag ba nga xam ne nii gis nañ leneen buñ ko gisee nag su boobaa ñu mën a ne ah daal di def alerte de gouvernement bi kat dañ ci wax parce que lii ak lii ak lii donc man dama ne personnellement gisaguma insidence boobu coupure boobu gisaguma ko mais su fekkee ne am na te man ki mu mën a sukkandiku pour mu jox ma ay information yu leer mooy ki nga xam ne moom moo yore Senelec muy DG Matar Cissé moom bu génnee wax ne carrément loolu taxul nit ñi coupure intempestive di am donc man damay jàpp li nga xam ne nii moom la wax ba gis la leneen. d'accord euh, tey jii euh, Mbow suñu ne après problème de l'eau ñuy wax ne on temps vers le problème de l'électricité naam euh, soxna Maguette mi ngi naan du am benn répercussion wala du am benn incidence ci dette boobu ki ni mel ak fluctuation yi ñu nemmeeku ci baril bekk yi ni mel mhm. mais tey jii ñu ba ci askan wi tàmbali nañu di dund li ni mel dañ naan alerté mhm. xoddaliku nag laataa ngay lakkale moo tax ñu bëgg ci taxaw tuuti pour wax ci ndax mhm. li ni mel euh, du indiwaat yeneen tolof tolof yoo xamante ne jotoon nañ ko dund waaw dëgg la soxna Awa ndax euh, courant bi moom bu fekkee dëgg rek euh, neex yàlla gisoon nañ ci benn amélioration quand ba ñu commencé am yaakaar parce que bi ñu koy jël 2012 quand même métti woon na bu nguur bi di ñëw 2012 métti woon na trop ci côté courant bi nit ñi di ñaxtu fu ñu toll coupure trop bi ñëwee def nañ benn euh, effort waaye comme ni nga ko waxee nag dernièrement franchement ñun ñëpp note nañ ne que commencé na am coupure man maa ngi jógee Kër Massar waaye Kër masaar boobu ma bàyyeeku euh, dernièrement coupure yi dafay bëri trop ñëpp xam nañ ne aussi li li ci jik euh, période seddaay bi jógu ci période tàngaay bi parce que seddaay bi ñenn ñi dinañ bañ a taal seen clim dinañ bañ taal seen ventilo yeeg mais bu demee ba nawet bi dugg ñu nekk ci période chaleur bi donc dañuy gën a soxla énergie loolu nag bu demee tamit ba nga xamante ni euh, Sénélec alerte na tamit ne euh, yenn euh, services yi yi nga xamante ni même bu fekkee ne ay demembrement de l'État lañ sax ñoo ngi ko ameel xaalis xaalis boobu yàgg nañ ko ko ameel waaye bi yoon dafa jéggi dayoo ba nga xamante ne nii mun na sooxeel seen liggéey ñun loolu daf ñuy daf ñuy tiital mm-hmm. donc ñu leen di ñaan rek au moins secteur boobu moom vraiment demoon na ba mu commencé épargner tuuti ci ay difficultés nañu jàppale rek ba nga xamante ne ni dinañ débloquer peut-être fonds yooyu le plus rapidement possible mu xaw wàññi. coono yi Senelec tuuti ba nga xamante ne distribution bi du du tàggataaw Maguette mi ngi wax ne répercussion bi naam su mënul ñàkk du ci ménage yi mais ci éclairage public bi lay euh, répercuté wu euh, mais su répercuté woo ci éclairage public bi itam problème de sécurité mhm. dina posé wu waaw boobu nag moom moo gën a garaaw man <laughs> boobu moo gën a garaaw nag moom foog naa ne Euh, lu mënta ñàkk bu sax nag éclairage euh, public bi nga xamante ni seetlu nañ léegi dernièrement suñu route yu bëri pour ne pas dire sax autoroute bi des fois amul courant amul benn lampe bu ciy tàkk yenn quartier yi amuñ euh, amuñ lampe te ñëpp xam nañ ne loolu dafay yokk agression yi am na ay quartiers yoo xamante ni bu ñu xesee noddu timis kenn ñemeetut génn pourquoi parce que tout simplement soit amul lampe soit am na làmp waaye mairie bi fayul ba nga xamante ni seen Senelec dafay couper dafay couper ay euh, dafay couper courant bi su ko defee euh, samba yi ñoom mun a génn ñoom tamit loolu moo leen arrangé ñu mun a profito di def naka su dul noonu. Mhm. Euh, ñu ñëw évoqué beneen point sànq maa ngi ko doon wax muy wàllu parrainage bi gis nañu ne le ministre de l' intérieur mi ngi wax parti politique yi nañ jël seen mal en patience rawatina ku jéeg politique bi ne mbir yi commencé gul waaye ñoom commencé nañu mais ku jéegi itam ne ñoom commencé nañu ñoom nguur gi moo tax ñoom tamit ñu commencé di gaawantu comme ça yëpp mun a yembandoo mais est ce que en trois mois mën nañu obtenir le nombre suffisant de parrainage bi nga xam te ne moom la ñu soxla tey jii. ah waaw parti bu ci wóolu sa bopp kay yaakaar ne am nga ay nit ñu la mën a porter sa candidature. Mhm. je pense que war nañ ko mën a en trois mois ñu am ko ñun day amuñu inquiétude côté boobu <laughs> franchement. Mhm. parce ñun moom vraiment ku yoo xam-xam ne léegi moom macha allah coalition bu mag lañ am Benno Bokk Yaakaar donc normalement ñun waruñu poser problème parce que ministre bi wax na ko nee na encore euh, ñi ngi ci dans les délais ndax wax na ko loolu. donc trois mois et quelques jours yi ñu am dinañu mën a permettre ma sama xalaat ñu mën a euh, am li nga xam ne nii moom lañ soxla ci nombre de parrains yi nga xam ne nii war nañ mën a porter candidature suñu président Macky Sall te je pense que loolu jafe moom ci parti bu mag bu dal ne APR ak coalition bi nga xam ne nii moom lañ àndal léegi yeneen parti yi nag ñoom ñooy xool bu leen neexee ñoom ñu commencé lekk ko seen bopp xam nga ndax dinañ matle wala duñu matle mais course lay doon mais xam nga lu tax euh, ñuy wax problème de timing bi mm. moom moo di ne est-ce que ci euh, jot nañu kayit yi leen di may déjà pour ñu jéem a ut euh, parrainage yooyu le tax ñuy course contre le temps même course contre le temps itam soo mm. demee uti sa kii da ngay répertorier waat mbir yi ci kayit yooyu delluwaat ñu signé waat est-ce que loolu du double travail boo xamante ne tey jii même bu fekkee ne tàmbali ngeen te joxe gu ñu top départ bi doo leen euh, recommencer waat à zéro. non je pense même que kenn mënul tàmbali bu fekkee joxewuñ euh, joxewuñ départ bi. Mhm. parce que parrainage moom dafay door a am euh, ci côté départ bi maîtriser wu ma ko trop waaye xam naa lu mel ni campagne électorale par exemple mënoo commencer campagne tant que ubbi wuñ ko officiellement. Mhm. mu nekk aussi benn question boo xamante ne ni ñoom ñoo ko forcer nit ñi mu naqari Sénégalais yi trop. parce que ñëpp xam nañ ne bu fekkee économiser lañ bëgg a wax sakkanal lañ bëgg a wax wala lu leer lañ bëgg wax nit ñi proposé woon nañ leen fi bulletin unique ñoom ñu jël bulletin unique bi teg ko fële wañ loxo nit ñi forcé nit ñi parenage bi nga xamante ni euh, ñëpp xam nañ ne arrangé wul Sénégal ak euh, niveau bu ñu toll euh, nii tey donte am na ay dëkk yoo xamante ni ñoo ngi koy def ay dëkk la yoo xamante ni sur le plan du développement ñoom ñoo ñu gën a avancé trop gën ñoo gën ñoo am ay xaral yu bees yoo xamante ni dina leen permettre ñu contrôler parrainage beeg yu demee noonu parce que mbiru signature la nag ak mbiru carte d'identité te xam nañ ne population bi dafa bëri ay euh, analphabète ak ñoo xamante ni euh, joxuñ signature euh, gëddëm mun nañoo ñëw ñu gis Mbowba mu présenté wu wax leen dara ñu ñëw ñu ñu ñu jox ko seen carte ñu jox ko signature am ku ci mel ni soxna Maguette ñëwaat suba jox leen benn 2000 francs ndax moo nekk ci nguur bi moom moo ëpp moyen comme ni mu ko waxee yenn parti aussi euh, jënd nañ leen ba nga xamante ni ñëw nañ presque seey nañ ci seen biir je pense que kooku dinañ ci ñëwaat mhm. donc fu mu nekk nii ñoom ñoo yore nguur gi ñoom ñoo am xaalis bi ñoom ñoo koy séddale comme ni ñu amee habitude di ko def ci bureau de vote yi gis nañoo dem ñoo xamante ni jot jox nañ seen kàddu ba pare ñu ñëw am nañu def ak ñoom ñooñu ñëw dem signer leen et bu boobaa bu ñu ñëwee bay seppi parce que kenn ku bokk ci ñoom koo xamante ne bu waxee rek comme li ñuy wax am na ñoo xamante ne bu ñu waxee rek dafa am fu ñu ko dégg wax na nee na ah amul problème léegi ñoo ngi leen di xaar même bu fekkee ne mën nañoo dajale signature yooyu sax ñoo ngi leen di xaar conseil constitutionnel parce que kooku aussi beneen euh, beneen voilà beneen affaire la mhm. beneen paire de manche la euh, tey ji mu mel ni wàllu parrainage bi comme ni ñu ko waxee woon depuis le début ne c'est juste benn façon pour euh, éliminer des adversaires si ñi nga xamante ne jot nañ leen éliminer si beneen euh, fànn bi mais tey jii pourquoi course contre la montre pourquoi wax ji tàmbalee bëri ci naan euh, signature yi suñu àggee conseil constitutionnel et date recours bi temps timing recours bi itam gàtt gàtt lool ba nga xamante ne lan moo ci fi lan mooy wane fiabilité wu sax euh, signature yeeg yi ni mel ak ban la ñuy valider ak buñ dul valider màgget est-ce que loolu itam doxoon na waxtoom ci jamono ji waaw Euh, li ma si xawoon a <laughs> def reetaan tuuti rek mooy ne opposition vraiment dañoo wóoluwul seen bopp man loolu laa gis parce que ku ci wóolu sa bopp wala am problème pour signature franchement te pare parrainage bu ñu ko defee ba pare ci la ñuy xam njëriñu parrainage parce que ñu bëri parti yu bëri dañuy nekk fi di yuuxu coow waaw du dem ci télévision média yi wax a wax wax mais bu desee rek dugg ci terrain doo leen gis donc ça veut dire ñoom li ñuy wax sax ñoom seen bopp gëmuñu ko xam nañ ne amuñu kattan bi amuñu capacité bi loolu mooy wax ji encore deuxièmement li ma si yokk mooy Mali dafa def parrainage seen élection yi jaar na ci yoon de parce que déggoo fa benn coow. mais Mali ñoom ñu ngeen 24 candidats. waaw mais man de waaw ñun léegi nag ñun dañu doon reproché ne parenage bi dañu bëgg a wàññi candidature te pourtant boo seetloo ins euh, fi ñu toll nii dernièrement dégg nañ ci lu mat 5 ba 6 candidats yu déclaré wu. donc ça veut dire que parrainage bi amul benn incidence par rapport ak candidature yi. déclaration ak ñu validé ko des na des. waaw waaw dëgg la mais ñooñu aussi ñi nga xam ne ni ñoom décidé nañu pour porter seen candidature ñooñu dafa naa ni xam nañ ne parrainage am na donc ñoom xam nañ ne dañu war a dem ci askan wi pour ut ay parrain yoo xam dañ leen di def jox ay signature comme ni ñu ko waxee. donc man li may xalaat rek mooy opposition bi lañ doon wax yëpp tey la ñu war a sukkandiku pour wax validité wu yooyu. Euh, kan moo conforme. loolu li conforme li conforme ak li conforme wu loolu. ñi nga xam ne ñoo yor affaire bi ñoom conseil constitutionnel bi nga xam ne moom mooy décider mo modalité yi. conseil constitutionnel bi nga xam ne chaque jour mu ne je suis incompétent. kooku moo war a décider mais ñun nañu na sunu juridiction yi fi nekk dañ leen war a respecté dañ leen war a wóolu dañ leen war a jox cër parce que buñ ko deful kon amatuñu njëriñ pour toog fi bu fekkee ne sénégalais wóorootuñ suñu juridiction ba jox leen la nga xam ne ni mooy la ñu la ñu liggéey ba ñoom ñu joxe seen seen avis donc ça veut dire que ñun état sax warul am parce que man dama jox cër juridiction yi nga xam moo nekk ci dëkk bi muy juridiction yi nga xam ne législative la muy judiciaire muy exécutif donc normalement li nga xam ne nii mooy liggéey bi te defe naa ni candidat yi nga xam ne ay candidat yu yu yu crédible lañ dinañ ko mën a dinañ mën a dem ci parenage bi dinan mën a am li nga xam ne ni mooy nombre de signatures yi nga xam ne ni moom lañ laaj muy 65 000 signatures yi donc je pense que loolu warul poser problème ci parti bi nga xam ne Sénégal nag gis nañ ne nit ñi ku xëy Euh, am lu la naqare rek nga yéen daal di créer sa parti léegi nag c'est le moment c'est le moment parce que ñu réduire le nombre de partis loi moo leen may pour ñu mën a euh, nekk en association. mën a mën a mën a compétir comme ñëpp. donc léegi comme demee na noonu léegi ñoom nañu fexe dem ci askan wi wane seen bopp wane lu ñu mën proposer nit ñi un projet un programme bu clair boo xam ne nii nit ñi dina leen woolu pour porté seen candidature waaye toog fi rek di wax di xas gouvernement bi di critiquer. loolu yomb na de mais jëf ji nag moo des ñu ngi leen di xaar foofu. jëf bi ñoo te ñun ñëpp aussi ci lañ bokk ndax ñun aussi nañuy wuti ay ay pare ñun tam noonu la ñuy wàccee nag ñu nit de wuti ay pare amul wuti <laughs> ah, euh, euh, moo nee na wuti mu ngi wax léegi naan ku ñu jox dañuy jox ni mille francs mu jox la si ñaar signature man defe naa léegi loolu yëpp sénégalais la yëpp yi la ak xas leen ak wax leen ne gëmuñu dara ndax nit bu toogee man ma yëkkati 2000 francs nous sommes nous sommes du du yëkkati 2000 francs di ma jox pour ma signal ko. loolu xeeb ma la dama la naan teel sa mille francs ndax ma gëmuma loolu man électeur laa sénégalais laa am naa droit vote xam naa ki may voteel wala xam naa parrain bi ma wala a àndal. Hmm. donc kenn waru mën a forcer kenn pour mu ànd ak nit. loolu ku ko wax da wax lu yëpp sénégalais yi moo tax ngay wax loolu defe naa askan wi fi toog mur nañ yàgg nañ dem ay élection hmm. te wóolu nañ suñu bopp te xam nañ ñoom li nga xam ne ni moo fi nekk li fi neewul su boobaa. ku nekk da nga da nga ngemb sa mbër ñëw teg ko waaw ñu ngeem suñu bër ñëw teg ko ñëw teg ko waaye tey ji eh, ci làmb gi ca xabal am na tequm biir am na lépp am na ci <laughs> laataa ñuy sëgg bëre sax gis nañu galgal yeeg eh, yi ni mel <laughs> eh, tey ñoom mbow ba ñoom samp nañu seen candidat mhm. waaye candidature boo xamante ne ma nga cay loxol yoon mhm. kenn xamagul fu wànnante di mu jekki gëtam ndax dina sampoom déet mhm. mu mel ni yooyu yëpp itam bogg na ci ndëgg sërëx yi nga xamante ne def nañ ko ci pour tour arène bi waaw Euh, ñoo ngi ñoo ngi naqarlu situation boobu métti nañu ba fu métti yem waaye dëgg rek moom mooy mujj te nguur bu dul jeex amut ba mu des nguuru yàlla euh, ñoo ngi rafetlu xalifa Sall suñu candidat bi mu génnee euh, mu ne mu déclaré nag officiellement ne léegi candidat la ndax moom dafa nekk candidature am dafa nekk une demande sociale balaa mu ko wax ay ati at nit ñi ñoo ko topp yaay suñu candidat yaay suñu candidat yaay suñu candidat ñuy laam-laame ndax candidat la wala nekkul candidat te laam-laame boobu sax moo tiitaloon ñi nekk ci pouvoir bi tey ba ñu jàpp ko ñu làq ko kaso bi plus de deux ans fi mu nekk nii ba léegi kenn kenn kenn xamul fu loolu di fu loolu di mujj waaye ñun ñoo ngi am yaakaar te ci biir rassure déjà ñun commencé nañ cee commencé nañ cee liggéey parce que ñun dañ ne dañoo am chance suñ mouvement bi ay jeunes ñoom ñoo ci ëpp donc euh, ñoo ngi ñoo ngi rattaché large di jéem a dem ci gox-goxaat yi di jéem a wàcc ci région yi di jéem a discuter ak askan bi di leen euh, sensibiliser ba nga xamante ni heure bu ñu ubbee parrainage boobu wala heure bu ñu ubbee campagne bi incha allah dinañ ci dox euh, am solo waaye yéen goo xamante ne guddi gu bët setagul la tracé yoon beek yi ni mel <laughs> ndax dooleen dem ba ci cappaandaw gi fas yéenee bootu ji euh, man bootu moom gëmuñu ko parce que ñun suñu candidat moom la ñu gëm moom la ñu wóolu te am nañ yaakaar ne incha allah dina génn comme ndax nee naa la dëgg rek moom mooy mujj euh, dafa am benn vidéo boo boo xam ne foog naa ne war ngeen ko seetaan ci internet bi mu ñuy jox euh, similitude yu am diggante président ak prisonnier parce que nee na nekkul pays rek moom moo leen boolee lu leen boolee dafa dafa wuti du du xëj histoire bi pour ñu raconter fii waaye gis nañ ñu bëri daal ay candidat lañ wala ay euh, nit lañ yoo xamante ni sonal nañ leen ñu bunduxatal leen jaar loo leen prison foog naa fi ay kàngam yu mag ci ah, Sénégal jaar nañ fi ku ci mel ni ku ci mel ni Nelson Mandela par exemple euh, jaar nañ prison ñu sonal leen fa bundu leen waaye bu leen yàlla teggalee coono bi teggeeku na te ñëw nañ ci magistrature suprême bi ñu def ci askan bu am solo te dutewuñ ne incha allah xalifa dina génn te bu génnee bu soobee yàlla ñun ak yeneen mouvement xalifiste yëpp dinañ ko gunge mu dem ci pale ba bu soobee yàlla. Euh, tey jii euh, yaa ngi ree Maguette <laughs> gis nañu ne yéen ku jug ne candidat la rek fas yéene diiranteeg yéen mbagg rek ngeen am loo leen teg ci kawam. Euh, mais tey lan moo waxal li ni mel ndax gis nañu ne Agibou Soumaré jug barki Dembo Ndiaye annoncé candidature am. ku ne cëpp ne lay rek tàmbalee ngeen koy sullil ay mbootu démbam ak bërki démbam lu tax euh, façon de faire euh, la politique boobu ci Sénégal lu tax tey loolu. est-ce que du opposants yi sax ñoo jéem a sulli pour jéem a taxal ñoom gi man laa li dal sama xel mooy ne euh, waa CENTIF def nañ benn communiqué pour wax ne loolu amul donc communiqué boobu je pense que war nañ ci mën a sukkandiku pour pour vraiment rafetlu sax li tax ñu wax ko. ndax loolu dafay wane ne encore une fois euh, opposition bi nu mu mënee manipuler nu mu mënee jaxase nu mu mënee indi ay problème par rapport ak opposition bi amu ci benn intérêt waaw mais euh, tout est possible Sénégal léegi lu ne mën na fee am en tout cas information bi génnee nañ ko biñ ko génnewee ñoom au moins def nañ tout ba automatiquement ñu réagir nest pa pas wax ne carrément ñoom defuñu benn enquête bu weesoo mbirum euh, euh, syndicat yi ni mel mm-hmm. am na ñoo mm-hmm. xamante ne tey jii dañuy nekk ay kuréel yoo xam ne dañ jug nee ne dañuy jàppale président Macky Sall mm-hmm. ñooñu tamit dañu tàmb di euh, sulli ay mbootu nit ci ay wàllu mërsëk yi ni mel pour gàkkal deru kooku ci wàllu politique rek est-ce que jotul tamit nag tey jii ñu soppi doxalin quand mu nekk ay débat d'idées que bañ a nekk ay querelle de personnes waaw su ma sañoon nag loolu lay nekk parce que man loolu laa gëm man gëmuma di waxal nit ki ay wax yu ñaaw politique aussi dafa rafet mhm. ñi koy def ñoo ko war a rafetal wala ñu mhm. ñaawal ko parce que feneen foo dem peut nit ñi ñu ngi def politique mais politique ba ñuy def dafa rafet donc Sénégal aussi war nañu xoolaat mhm. ñenn ñi daal ñi ñuy defee politique pré suñu président de Macky Sall moom mosuma ko dégg bu waxal nit lu ñaaw te loolu bokk nañu li nga tax ma li tax man ma ma ànd ak moom pour liggéey mosul wax nit lu ñaaw mosul xas nit mosul xaraf mais tey ay jege ñaaleem su jógee di waaw mais ay jege euh, ñaaleem day mel ni moom ay ñaaleem aussi bu bu fekkee ne def nañ ko peut-être euh, langue gi moo demee noonu wala langue langue gi moo bindoo noonu am na ñoo xam ne tamit mu nekk ci nguur gi comme mu nekk ci opposition bi ñoom loolu la ñu ñoom loolu mooy seen mooy seen moom la ñuy def mooy seen idéologie moom loolu la ñuy doxalee seen politique politique nag je pense loolu man sincèrement li may xalaat ci politique mën nañ ko def mais mu nekk ay arguments mm-hmm. ay idée ay échange yoo xam ne nii askan wi nga xam ne ñoo ñuy suivre te ñoom gënuñu leen xam yëf yi nu mu demee gënuñu leen muus mm-hmm. gënuñu leen xarañ dafa fekk na xëy na ñun ñoo tànn pour nekk ay politiciens di dem di liggéeyal askan wi di jëriñ sunu askan sunu ba xam ne ni peut-être ñoom mënuñu fa yegg mais nag quand même bu ñu rafetalee affaire bi dafa naa ni dina jaar yoon. Mhm. te ñun loolu loolu c' est à l'image de notre président Macky Sall koo xam ne man moom laay jëlee comme référence. jël sa la première dame comme référence musuñu xas nit suñu xarab nit suñu wax nit lu ñaaw su fekkee ne loolu am na nag peut-être que ay débordement la yoo xam ne nii comprendre nañ ko parce que espace politique Sénégal moo moom ay débordement bëri nañu. waaw mais opposition bi tam am nañ débordement ku ci nekk côté bu am na ci ay problème yoo xam ne ñoom tam ñoo fi dàq su li mbóot mu ne yenn saa ñu wax looñu loo xam ne nii peut-être <laughs> amul jël nañ fi exemple fan nii passé rek Abdoul mbay bu mu fi jógee naan waaw il paraît que dañoo rey benn jën affaire yooyu ci ay manifestation alors que loolu moom moo ñëwaat sax moom ci boppam retourné waat weddi ko donc ça veut dire que taxal bi ñuy taxal nguur gi loolu du fi bees yàgg na fi donc ñun man su ma sañoon carrément damay ña euh, ñaan sama naataango yi nga xam ñoom laa bokkal ci parti bi ñun mën nañ defaan suñu président am nañ ay résultat yoo xam ne buñ ko tegee ci table bi du am naatable hmm. teg nañ programme tegati nañ programme ñu ngi ci PSE bi ñu ngi ci réussir nañ presque la moitié de nos engagements donc li nga xam ne moom mooy def bi fan la est askan wi la. bien sûr que ci ah. askan wi la d'accord dinañ <laughs> ñëwaat loolu ñu avancé un euh, tey jii euh, laaj bi may yëkkati moo di ndax Benno Bokk Yaakaar am na. su ñu gisee parti bu mag bu mel ni parti socialiste màbb fi mu nekk nii mun nañ ko wax ne màmm na daal dem na toog euh, jël euh, euh, poings et pieds liés mm-hmm. dem jox ki nga xamante ne moo di le président Macky Sall mm-hmm. yéen ñi nga xam ne yéen a génn ci plan wu parti socialiste tey mm-hmm. jii naka ngeen dundee li waaw nga baal ma aw balaa maa tontu ci question bi ma ñëwaat tuuti rek ci liñ doon waxtaane léegi muy affaire politique ñun bañ nañ ko ba ci suñu biir euh, mouvement muy rassure di le rassemblement pour euh, la solidarité et l'unité dans la république dañ ne c'est mouvement euh, donc dañuy poser ay activités citoyennes yu bëri balaa ñoo dugg sax ci wàllu politique ba pare nag bi ñu toogee waxtaan ñu jël ku mel ni xalifa ñu def ko suñu candidat ñëpp xam nañ ne xalifa valeur yu muy yu muy incarné donc foofu moom dama ci d'accord ak màgget il est vraiment temps ñëpp euh, commencer di def de la politique euh, autrement parce que c'est une mission noble c'est servir euh, son pays c'est servir sa cité et cetera donc pour ñëwaat ci laaj bi nga laaj léegi barki démb bu ñu déggee nouvelle bi naxar lañ ci am naxar bu rëy rëy parce que nag c'est historique parti bu mel ni parti socialiste depuis 1948 muy bokk ci ay élections yi bu mos a rëy bu mos ngande ñoom ñoo ko organisé ñoom ñoo ci bokk ñu toog nag ba tey 2018 dix ans après ñu bëgg jël parti bi ñu tayle ko ñu ne parti bi dafay dem di soutenir foog naa parti bu toll ni parti socialiste dañ dafa dañ ko waroon dañoo waroon a ñëw dugg ci si biir sey ci biir waaye nekkul parti socialiste moom moo waroon a dem di di sey fenn te lu tax décision bi gëj na gëj noo naqari mooy nekkul le peuple socialiste ñoom ñoo ñoom ñoo choisir nekkul les militants socialistes waaye benn bureau politique pour ne pas dire euh, une personne le secrétaire général bi nga xamante ni xam nañ ne politique addition la da ngay indi kenn kooku indi kenn ko moom bi mu fi nekkee ba léegi day soustraire rek jógee ci 11 pour cent dem ci 7 pour cent et moom moo tëju ci bureau ak ñi ko neex ñi nga xamante ne leen di jox ay ndombol tànk ñoo jël décision boobu. waaye fenn rek la ñuy sante yàlla mooy décision boobu ñun daf ñoo réconforté ci suñ position ñun jeunes yi nga xamante ne woon dañoo nekkoon ci parti ni Youssouf Mbow ku que dañoo teel a ñu ne ñoom mënuñoo nekk ci parti socialiste boo xamante ni dafay bootu parti socialiste boo xamante ni du am candidat loolu moom moo tax ñu jël xalifa ñu gis li muy incarné ñu jël ko def ko seen candidat loolu moom loolu moom moo waral ñu dàq leen waaye tey jii foog naa bu pundi bi waree ñëpp xam nañu fa dëgg bi féete. Mhm. mais tey jii est-ce que Macky Sall n'a pas réussi euh, li muy bëggoon a def tey jii mooy ces euh, grands mais mu réduire leen tey jii l'opposition la waxoon ne daf leen di réduire à leur plus simple expression mais tey yaakaar naa ne parti yu mag yooyu la réduire à leur plus mhm. simple expression est-ce que tey jii on peut parler de Benno Bokk Yaakaar est-ce que mën nañu jàpp rek ne APR la tout <laughs> dafa naa ni loolu <laughs> boo ko waxee dafa mel ne waa PS euh, bokk ma nag seen parti waaye buñ la déggoon dan la mere de aw jëm Njaay ndax ah non c'est la réalité ah, mooy tradition bi ñu gis rek la ñu wax aussi pour man pour man cohabitation la rek boo xam ne nii vraiment dox na hmm. waaw parce que ñoom dox na ci ban côté dox na parce que ci askan wi wala ci ñoom seen biir hmm, hmm. non dama ne cohabitation bi nu mu war a doxee ci ñaari parti yu bokkul cohabitation bi dox na maanaam politiquement lay wax nest pas donc euh, li may wax foofu mooy parti socialiste allié la boo xam ne depuis 2012 mu ngi ànd ak président Macky Sall ñu bokk liggéey bi ñuy def bokk programme yi ñu tëral bokk engagement yi ñuy jël bokkandoo doxo doxandoo engagement yooyu ba tey ji yàlla def heure bi ñu nekk à l'heure du bilan à quelque mois des élections présidentielles donc man euh, gisu gisuñu ñun li tax ñun parti socialiste bi nga xam ne gunge nañu ak AFP ak yeneen parti yi nga xam ne ànd nañu gouvernement bi ànd nañu président Macky Sall ba heure bi bokk ak moom bilan bi nga xam ne moom la nar a présenté Sénégalais muy retourné waat di présenter une candidature autre que pré euh, candidature président de la république donc loolu du du du même du logique loolu xel mënu ko xalaat donc seen normal ñoom ñu ngi ci seen logique bi ñu nekkoon depuis 2012 parce que Macky engagement bu mu mës jël ak ñoom daf koy respecté war na leen ni fonk na leen war na leen ni jox na leen seen gëdd en tant que parti c'est normal que ñu dooreendoo processus bi depuis 2012 c'est normal que ñun ñu continuer ko ba nga xam ne ni léegi yàlla may nañu heure bi tey ñu war a mën a toogaat waxata wan leen ñun lii la ñu def lii lañ jëloon engagement promesse lii la woon lii lañ ci réalisé ba nga xam ne ñoom xëy na dinañ am confiance pour mën a pour mën a gunge ñu donc parti socialiste encore une fois man bokkuma seen parti mais je pense que lu luñ dara ci seen force bi ñu amoon dafa fekk ne cohabitation la boo xam ne bu am la donc c'est normal mënuñu am ay ministre ñu nekk ci gouvernement ba pare liggéey ci ay liggéey yu am solo ñëw dikkaat naan dañuy ut beneen candidature bu nekkul président Macky Sall. Mhm. donc je pense que c' est tout à fait normal et logique que ñoom ñu continuer ak accompagner président de la république pour mu amaat un second mandat. Mhm. en 30 secondes rek heure bi jeex na est le mooy question bi ma laaj Maguette. Mhm. est ce que le sa mission li mu bëggoon def mooy envoyer ces grands entre guillemets partis là à la retraite tey jii. Euh, ndax loolu il ne l'a a euh, réussi voilà. waaw mission boobu ah, awa ñëpp gis nañ ko réussir na ko waxoon na ko te ni mu ko waxee boobu ba léegi moo ngi koy moo ngi koy moo koy déroulé di ci génn. Mhm. parce que ñëpp xam nañ ne parti bu mel ni AFP wala parti bu mel ni parti socialist bi ñu ñëwee en bi ñu ko gungee en en 2012. lu mu def mooy jël yenn portefeuille ministériel comme ni mu ko waxee léegi jox parti socialiste deux ministres ak quelques quelques députés. jël la Ousmane Tanor léegi mu dénk ko au conseil encore heure sax parce que léegi au moins nit ñi dinañ xam ne am na lu mu jiite parce que bu njëkk ba dañuy gis fu président bi euh, génn moom mu génn ànd ak moom ku ñuy recevoir mu toog fu ñuy wax moom mooy wax fu ñuy voyager moom mooy dem te kenn xamutoon ci ban ci ban la koy defee donc seeni intérêt la ñuy sàmm ba nga xamante ni intérêt intérêt intérêt parti bi euh, taxuloon a jóg ku ci mel ni Moustapha Niass aussi c'est la même chose jël na yenn jeunes yu mel ni Malick Gakou mu sacrifier leen dem ba toog ak respect bu ñu am ci moom ak lim incarné ci Sénégal toog ci télé bi mu saaga képp koo xamante ni soutenir souteniroo Macky mu jaar fu bon ne moom Macky lay soutenir et puis pare na pour dem ci ba jeex je pense que ñoom ñëpp euh, tas nañ seen parti actuellement merci beaucoup madame Maguette Dia bokk ci cadre yu alliance pour la république may jaajëfal bu baax euh, Mbow ko ci euh, mouvement rassure bu Youssou Mbow may jaajëfal bu baax Oustaz Assane Diouf mi nga xamante ne moom moo pare woon ci wàllu coordination bi du côté de la régie et de la réalisation technique Charles René Fall ma koy euh, jaajëfal bu baax di jaajëfal itam Modou Fall mi nga xamante ne jàpp na ci di leen jaajëfal yéen ñi safoo leeru jamono wal fajri dig daje àllarba bi di ñëw bu soobee suñu borom di leen ñaanal fanaanu jàmm ak salaam te di ko sàkku ci yéen